ahlan bikum sëriñ muntaxa basiru mbàkke xalifa général des mourides fa yónnee Ousmane Sonko tàndarma sàkku ci moom mu dakkal geraw dalaa la ba xiifal ga su ko defee moom dina wax ak njiit réew makki sàll Sall ngir mu bàyyi ko mu génn kaso vox populi moo ñu ko xamal te mooy yéene kaay na ko waa yeewi askan wi seen délégation ba ginnaaw bu mu leen dalalee ni ki démb ca Touba fa leen a jox ab message kàddu ngir ñu yegg ko Ousmane Sonko yow fa laa bëgg ngeen wax Ousmane Sonko mu dakkal xiifal googu mu nekkee te man faay dox ay jéego wax ak njiit mi ngir mu bàyyi ko mu génn kaso donte nag mënumaa wañ loxoom waaye faa koy sàkk ci moom yor yor yéen a kaay dëggal li ni mel les se que yéen a kaay na ko sëriñ Muntaxa kay fa joxe ndigal ak ndogu fa xam xamle tamit ne Ousmane Sonko faa ko jàppee comme sama doom man sëriñ Muntaxa l'observateur ne faa leen di wax mbiru tàndarma yooyu naka la yëfee demee yaaw fa xool waaye yeewi askan wi fa mu ñaanal Ousmane Sonko ci ab jox ko ngir mu arrêté grève de la faim bi mujj gi ci la ñu àndi ba di ko filmer ci téléphone nii la yëf yi demee kon càkkutéefu waaye yeewi askan wi la vox populi mel ni ku man daal fay laajte est-ce foog ngeen ne Ousmane Sonko gars bu ñu yeggee jox ko tàndarma bi wax ko li xalifa bi wax est ngeen foog ne fay dakkal xiifal gi grève de la bi est dana ko jëfee turbine yéene kaay na ko man it faaxam baneen laaj léegi Ousmane Sonko su toppee ndigalu xalifa bi ba tax mu dakkal xiifal gam nekkee est-ce que njiitaram moom it dana jëfee li ko xalifa général des Mourides sant ci mooy mu bàyyi Ousmane Sonko mu génn kaso loolay laaj bi nag beneen laaj bi ci topp mooy ñoom waaye yeewi askano est-ce ngeen foog ne gars yi leen bàyyi ñu dem ca Sonko jox ko tàndarma ak la xalifa ba wax yor yor yéen kaay ne Cheikh Bara Ndiaye tamit ma nekk ca grève de la te fa bañ ne kenn du ko faj fa sonn lool fi toll nii ay ba fa ñoo bañ fañ ko wax <laughs> na tontu daal Wolof Njaay ko wax waaye ku weddi laajal téeméer ak ñeen fukk intellectuel yi nga xam ne Serigne Diop nekkoon fi jëriñ ji ñu dénk wàlluk yoon nga xam ne fa leen a jiite ñu bokk ñoom ñëpp signé di sàkk ci njiitëre Macky Sall mu bàyyi Ousmane Sonko mu génn kaso naka noonu Filwine Sarr bi génn ñaawlu doxalinu nguur gi sàkk ñu bàyyi Sonko info yéen a nee na farandoor njiitëre Macky Sall yi fañ leen a tontu ñoom ñooñu yaaw fa ngay xool Abdou Karim Fofana nee na man faa a séparation pouvoir maanaam bu mi mu bàyyi Sonko mooy firnde ne kon moom ko tëj mooy tëj di tijji kon pouvoir yëpp ci loxoom la nekk loolu benn la ñaar faa leen di laaj yéen ak ñi ngeen xàndal waaye yéen fan ngeen nekkoon bi Ousmane Sonko di nappaaje wàllug yoon bi muy wax naa ndaw ñi nañ dem faagaagal njiit réew Macky ca pale ba def ko ni ñu defoon Samuel Doe booba kenn déggu leen Yoro Dia ba tey ci info yéen a kaay na ko may moo lañ nekk bëgg a exister ci wàllu politique ay opposition yu làqatu lañ wala fajër yéen kaay na leen voilà opposition boobu ngeen di wax faa leen di wax ni mu war a def ngir gàddu ndam li ci wote yi di ñëw leeral yaa ngi ca biir kaay ba leer la neen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne maam booy jaawo moom fa wax na candidat la fay samp ndërëm 2024 pour benn bokk yaakaar moo xam Macky tànn ko wala mu ñàkk koo tànn direct news nag fa xëy séq waxtaan ak moom mu wax fa fukki dëggam ak ñaar yaw seetal nee na ñu bëgg a bëri te charte yooyu ñuy wax naan fañ ko signé ak njiitëram Macky Sall loolu dëgg kenn signé ko te Macky ku mën a tànn dees koy waxtaanee bañ ko laajee ci mbiru Ousmane Sonko yi fa wax wax ju rafet ci Sonko dëggal seen ak kàndoo doon liggéey séq jàmm ak kóllëre ba tax fa wax ne su ma nekkoon place Sonko fay dakkal sama grève de la faim bi bàyyi xel ak xool ci njabootam yi rawatina ñaari soxnam yi kàddu yi ñu fi wax la mu wax moom la ci réew mi ma ngi ko waxee ba yegg ca nañ ja mooy gudd yooyu nga xam ne foo xaw a mel ni saxaar weeru décembre lay tàmbalee daw Sénégal carrément waaye fi mu toll nii ndakaaru njaay kilifa yi ñu dénk wàllu wa fa ñoo nekk ci li ñuy wax essayé BRT ña ngay daw ñuy xool la ca baax ak lañ war a jubbanti yaaw seetal état bi fay accélérer yëf yi pour mu gaaw téeméeri bus ak ñaar fukk ak benn ñoom la ñuy tàmbalee danañ ko yóbbu nag ba téeméer ak juróom fukk ci ay bus junney emploi ci ndaw ña fa ca nar a xam ak juróom fukk ci ay voyageur moom la bus yi boo boolee ñoom ñëpp li ñu yóbbu ci ay nit ci benn bés dana yegg ci ñetti téeméeri junney doomu aadama kilifa yi ñu dénk wàll wi ñoo ko wax ca Sud Quotidien antenne yéen a kaay na ko laneen lu ñu wax ñoom ñu ñu dénk wàllu BRT bi mooy ñaxtu yi fi amoon yàqute yi nga xam ne ña doon manifester fañ ko def ca BRT ba rajaxe ko ba mokk xam nga ñaata la jural Sénégal perte nañ ci cinq milliards ba tax ñu ne loolu fañ ko war a moytu ndax baaxut laneen lu ñu war a moytu lu baaxut mooy wàllu sabotage goo xam ne fa xam ñu koy def ca wàllu toxal ndox ma manque ma ca dëkk bu sell ba di Touba a kaay ñu ko xamal waa ONAS yi fañ koo ñaawlu ne ay fan rek màggal gi ñuy saboté seen i ba tax duñ mën a manque ndox ma rawatina wetu mairie ba baaxoon ci démocratie Sénégal daan xeex wàllu justice ñeme dëgg ragalut kenn ku dul yàlla du kenn ku may amat daan soxo ba tax enquête yéen kaay di ñu fàttali ne bésu tay bi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août 2019 ci la génnoon àdduna man ma génn foofu dem ci l'observateur wax leen fa mbir mu yéeme yaaw seetal fa xam ñaari agent takk der yu GIGN fañ leen a teg loxo ndax fañoo yoroon ñaari milliards ci suñu xaalis ci xaalis boo xam ne xaalis bu bon la baaxut mooy faux ay dollars la woon